mu mel ne tey ñoo ngi fii tey ci kër Serigne Mountakha kuréel goo xam ne dañoo ëmb mboolem techniciens yi laboratoire yi yëpp yi nekk Sénégal xam naa mboolem kàddu yëpp da ngeen ko dégg tey tey ñu mouvement ànd ngir booloo ngir ñëw siyaar ci Serigne Mountakha ngir yeesal ko waaye gën koo jokkale it seenub liggéey ak li nga xamante si ni tey ñu ngi koy liggéey Serigne Touba kon mbokk yi dañuy ànd ak yéen ñu dugg ci biir ñu ànd ak yéen jël mboolem siyaar bi nga xamante si ni ah, ah, am na ci biir. ilaaha illallaah la ilaha illallah la la ilaha illallah la la ilaha illallah la laa ilaaha illallah. Eh, moo tax tey nag ñu ñëw siyaare si la Mbacke bëgg jëf joo ñu xam dañ koy jëf at mu jot nga ñaanal leen ci mu gën a yokk te ñu am barkeel loolu moom mooy seen yitte waaw. Cheikh Cissé la tudd loolu la lii addiya weer la ñu ñoo ko joxe tamit waaw maa gis waaye moo ko photo bi ñoom ñoo la ko indil jox la ko waaw. wakaana xaqan bi tamit ñoo la ko jox mi ngi nii wakaana xaqan baax na waa danañ ko mën a def fii mun taxaa ñaan jëla nga jox ko mun taxaa Cheikh euh, naa si la mën def ko ci mbaar mi waaw sëñ Cheikhu sëriñ bi dafa wax ne nee na mi ngi sant baax ci taxawaay bi ak yitte ji Cheikhu Cissé waaw Cheikhu waa Dakar la féete waaw bi dafa sant na baax ci taxawaay bi ak yitte ji rawatina liggéey bu rafet bi nga xam ne dangeen koy def mu jëm ci wàllu santé nee na mi ngi leen ciy sant di leen ñaanal ngeen day cee tawféex sëñ Touba kon tàlle mu ñaan leen bismillah ñaan ak Seexu Siise na ñëpp tàllal seen loxo laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah la ilaha illallah la laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha ilaha la ilaha illallah la man may Cheikhou Cissé ki jiite union des techniciens biologistes du Sénégal association association la boo xamante ne mu ngi ci quatorze régions yëpp Sénégal dañoo ñëwoon fi tey ziar seen bi ah, xamal ko association bi surtout euh, depuis bu ñu créé association bi dañuy ñëw chaque magal dañuy ñëw fii jàpp ci liggéey bi liggéey seen bi mooy euh, Matlaboul Fawzeyni Ndamatou ak yeneen laboratoire yi nekk biir Touba fi Euh, jàpp ci liggéey bi def ci analyse yi deux jours avant magal ak deux jours magal bi et deux jours après magal bi liggéey booy bu ñu ko tàmbalee ba léegi sëñ bi yëgu ko moo tax tey ñu ñëw ziare ko xamal ko euh, ñu ngi fii pour jàppale ko ci liggéey sëñ Touba euh, en même temps wax ko mu ñaanal ñu parce que association bi ñu ngi ñu ngi tolloo presque cinq cent vingt et un membres ci quatorze régions yi yëpp am nañ fa am nañ fa secrétaire donc pour mu ñaanal association bi Euh, ñu gën a jëm kanam gën a mën a euh, liggéeyal surtout euh, xalif xalif généraux yi nekk fii yëpp parce que dañuy dem Touba dañuy ñëw Touba fi dañuy dem Tiwaawoon ci gàmmo bi dañuy dem na Baye donc liggéey social boobu ñu tàmbale mu ñaanal ñu vraiment mu mu jëme kanam ndaw yi nekk ci biir association bi ñaanal ñëpp tamit gudd fan ak wér lépp lu ñuy sumb yàlla jàppalee ñu vraiment mu mu sotti mooy waral suñu taxawaayu tey si wetu sëñ bi ziyaare ko. xamal ko association bi maa ngi ànd ak euh, kii euh, délégation Thiès ñu jógee si Thiès secrétaire général bu jiite association bi Thiès secrétaire général bu jiite association bi tamit euh, Kaolack ak Dakar ak am na ñuy bàyyeekoo Bambey ak Saint-Louis ñoo fi ñëw taal ak Touba mi ñoo fi ñëw taal vraiment ziara sëriñ bi xamal ko liggéey bu ñu def ci màggal gi mu gën ñu ñaanal liggéey bi gën a jëm kanam. bisimilah barke borom Touba. Euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar euh, di wax ne tey jii dañoo ñëwoon ci turu association technicien biologiste yi nekk Sénégal yëpp ziar si kii di sëñ Mountakha Bachir di xalifa général des Mourides don ko biral tamit liggéey bi ñuy def ci population sénégalaise ndax comme ni ko ñëpp xamee ñi nekk ci analyse ñi nekk ci laboratoire yi ñoom ñooy def analyse yi analyse yi nga xamante si médecins yi ci la ñuy sukkandiku ngir mën a faj maladie ñun nag at mu jot su màggal jotee dinañ def délégation ñëw fii nii jàppale laboratoire yi nekk ci biir Touba ngir ñu mën a jàppale ñi nga xamante ni si ñooy ñëw di màggal si noonu tamit noonu lañ koy defee Tiwaawan noonu lañ koy defee ci yeneen màggal yeeg yeneen gàmmu yi lu bu weesoo loolu tamit ñu ngi def yeneen œuvre yoo xamante ni si faaw nit ñi xam ko ndax dañuy def ay don de sang heure buñ sentiree ni dëkk bi daal xaw na manqué deret ba nit ñi am ay jafe-jafe ñun dañuy génnee ci suñu poosu bopp Euh, dajale fexe ba def don de sang wala ñu def ay dépistage yoo xamante ni si dina mën a jariñ population sénégalaise bi kon nag ñu ngi sant ñëpp dañu ñëwoon nag ñaan sëñ Muntaxa mu ñaanal association bi mu jëm ci kanam jëm ci kaw ñu ñëpp ñu continuer di bokk di manko ngir mën a jàppale population sénégalaise nii ñu ko defee fii tamit dinañ ko defee ci yeneen kër xalifa yi ndax di sàkku ñaan ci ñëpp rek jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi kon lii mooy li nga xam ne tey moom leen leen jëlal fii tey ci mooy ci kër sëñ Mountakha muy siyaar bu am solo di siyaar moo boo xam ne kuréel gi nga xam ne ñoo ëmb mbooleem techniciens yi laboratoire yi nekk ci biir Sénégal tey ñu ñëw fii tey siyaar Cheikh Mountakha ngir yeesal ko waaye jokkal ko ak seenub liggéey ah, ak seenub siyaar gis ngeen ci siyaar bu am solo bi waaye nataal yu am solo yi nga xamante ni nii indil nañ ko sëriñ bi waaye tamit sëñ Fallou ndeysaan feggoog ñoom di yëkkati tur yàlla wi nga xam ne Cheikh Mountakha da koy dund kon ñoo ngi siyaare ñëpp mu mel ne lii lañ leen jëloon tey fii ci kër mun Mountakha ñu àndoon kook mbooleem